le quotidien bu yof moom euh, jubli ci mbirum Bougazelli yi moom député bi nga xam ni dafa taq ci euh, mbirum phobie yi procureur de la république bi di bas moom mu mel ni euh, ku amatul kàddu ci mbir mi ndax tekk tekkaaral ba mu nekkee ñu mën ko yër ci biir quotidien bu yof bi di le quotidien ci tekk tekkaaralu ko procureur de la république boobee la yéenekaay bi di gën a yaatal ci ni nga xam ni moom la kii di Bougazelli taqee ci mbirum trafic de phobie yooyu mu demoon sax bay jéem a génn réew mi ñu mën ko yër ci biir yéenekaay bi quotidien moom it eh, di ko feelu ci xëtam bu njëkk nan Bougazelli kenn xamut fa mu ne te mu ne sax ñi mu àndaloon doon def jëf yooyee fi mu toll ni jébbal nañ leen procureur de la république ngir mu àddu ci seen i mbir am ab information judiciaire bu ñu tijji ngir gën a leeral mbir mi libération di dikkaat ci mbirum Bougazelli moom itam di àddu ni lu taxawoon moom Bougazelli demutoon wuyu waa section de recherche bu Colobane ñoom ñi ko doon xaar ngir déglu ko ci wàll wi critique ay baaramam nga xam ni boo mooy tut ñoo mën a dal ci euh, ndaddu Bougazelli ak ñamu àndal lu ñu duppee association de malfaiteurs mooy euh, def ab mbootaay di def naka sudul noonu waaye itam di jëfandikoo ay faux mooy jëf yi nga xam ni ñoom la ñu njott ni moom Bougazelli ak ñamu àndal moom la ñu daan def yéenekaay bi di enquête di dikkaat ci yenn Bougazelli duute waa section de recherche bañ leen wuy ji itam ñaareel bi yoon député apériste bi mel ni ku jéppi justice u mim réew ci kàdduk journal bi ñu daal juge daal di bañ a dem wuye ji mu àdduni yaramam moo sutante député APR bi di doxi soxlam ba tey ci biir journal bi ñoo xam ni ñoom la ñu jàpp njott ni dafa bokkoon ak ñooñe doon def ñawtef yooye ñu defeere leen ci kanamu procureur de la république bi ci biir dossier boobu nag ci mbirum Bougazeli boobu nag mu mel ni kilifa yu ŋànk yoon bi ci biir réew mi dañ ci demee tey ak tekkaaral yéenekaay bi di enquête di wéyal mbirum Bougazeli bi ak taxawaay waxtaan ak Luc saar di conseil politique bu njiiti réew mi Macky Sall moom Luc saar di àdduni ñoom seen parti bi amut benn taxawaay boo xam ne dinañ ko si fas yéene am ñeel jàppal tànk kii di Bougazelli Vox Populi moom itam di di dikkaat ci mbirum faux billets yooye di samp ab laaj nan Bougazeli di député ndax dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey buy lëmbee réew mi te moo ne ñi mu àndaloon dañ def jée yooyee jébbal nañ leen procureur de la république ba noppi. journalisé ko xëy wàccee wax ji ci xëtamu njëkk indil ñu mbir yi mu jàpp ne mooy firndeel ni kii di Bougazeli seetul ci li ñu koy waxal ne ba léegi mi ngi wéy di soofantal ak kekkantoo gendarme yi section recherche yi ko convoqué ñu convoqué ko ñaari yoon mu fóose leen yeneen juróomi nit si ñuy tudd ci mbir mi ba jàppoon leen yéen a kaay bi nañu defeere nañu leen démb waaye retour de parquet lañu Dramé tey jii la ñuy xëy delluwaat ci juróomi nit yooyee ñu jàpp am na ca benn xale ak benn burkinabé am na it benn vidéo bu enquête kat yi gis ci téléphone bu xale bi ci vidéo ba ñoo ngi ciy gis burkinabé bi muy raxas xaalis bu setul député Bougazeli ak ni muy def Vox Populi di laaj ndax ak maa raxu ci libération nañu Bougazeli mayeti nañu beneen ndax ñi ko wër mu di entourage am li ñu bëgg a wër di ko gëmloo nit ñi moo di enquête kat yi dañu ko woolu moom député Seydina Fall ba mu ñëw ñu bokkoo sa tey awakaam teewuñu kenn ci awakaam di maître Assane Dioma Ndiaye mel ne kuy weddi wax wax ji ci biir l'observateur ne ma nga fay xamle ne commandant bu section recherche na li ko règlement cinq bu UEMOA bi sant ndax bi mu jàppee Bougazeli da ko fàttali li yoon wax mu am na sañ-sañu woo ay awakaam ñu ñëw maître Assane Dioma Ndiaye ne ci la député Bougazeli joxe sama tur ak turu maître El Hadji Diouf waaye malheureusement bi ñu ñuy woo fekkul ñu nekk Ndakaaru li tax nag alkaati yi convoqué ko ñaari yoon demul wuy ji leen maître Assane Dioma Ndiaye ne du lu ko ay awakaam sant xëy na moo ko def ci coobare boppam maître El Hadji Diouf mi ñu ne dafa bokk ci avocat yu député Seydina Fall ngi leeral ci biir l'observateur l'observateur ba fu muy waxee ak ñun bokkagul ci député Bougazeli député Aymérou Gningue mi bokk ak moom langu député du groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar dañuy wax ci Sud Quotidien ne ak lu mën di xew neexul ci xol ngay gis sa naataango muy nekk ci ñol ñol yu ni mel